ma juumalee ñoo ngi si huitième combat. diggante Aïdara ak Bari 2. Aïdara moo ñu wan kanam. Bari 2 moo ñu wan ginnaaw. ñoom ñaan mayante ne espace. ku nekk nga jat. sëñ bi waxoon yaa ngi koy def ku si fàtte benn moo sa morom daan la loolu sëñ bi ay dara ak baari de ñoo ngi lewtoo ñoo ngi lewtoo sànq ba neex ñoo am ay combat vite fait bien fait eh ay dara ay dara dem na bay dóor a dóorul baay de fay na moom tamit ay dara bay de baay de ñoo ngi damantey baaraam ñoo ngi damantey baaraam eh ñoo ngi damantey baaraam yàgg yàgg suuf ngeen jëm songante nañ ay dara song na bàyyi deux ay dara song na bàyyi deux waaye bàyyi deux jàpp na ngemu bàyyi deux lu mu def nii ay dara ngay suqi ay dara ngay suqi ay dara ngay suqi dem si suuf daa dem trois appuis am na wala amul am na nga yéen xool am na wala amul ah, daan na ko ah eh, ñoroon naa daan Baye 2 daan na Baye 2 daan na ay dara oh xoolal ma si ba tey nee na ñem xoolal ma si ba tey nee na ñem xoolal ma si ndigal mi baax rak cey giin ay waay wala mbëri ndaw yi kanam waaw di la ñaanal yàlla yàlla guddal sa fan bàyyi la ba si kanam a kanam kan ndax làmb soxla na la waa ma boo amee combat sa waa écrit yëpp dañuy ne ci sa ginnaaw ak gox bi nga dëkk est-ce que xam nga ban yaakaar lañu am ci yow. tey moo nekk suñu premier combat ñun école de Jara Birama Dior kon ñoom ñëpp dama leen a bootoon te combat yi fa nekk ëpp nañ huit combat barki Seydina ma xam ne ñëpp ñi am combat xam ne dimanche sax dañoo ñëw seetaan si ma ndax lan am nañ yaakaar ci seen booy loolu moo tax ñu gën a mobiliser ñëw jàppale seen doom Cheikh Bara boo gisee moo wax loolu xam nga Jali Birama Coor lu ne def na ko ci làmb mais ba léegi amagul ndaanaan bu mag bu bu ko dab te yow nga yor taay bi looloo tax ma waxee foofu. di la wax ne ñoo ngi nii ci ay tànkam. barki Seydina Mohamed mënumaa dem bëre ji su ma génnee suñu kër su ma daanee balaa may dugg si kër néegam laay njëkk a dugg li may wax su amul yàlla bu ma daanati su ma balaa may dugg suñu kër néegam laay njëkk a dugg démb ci néegam laa mujjee tey si néegam laay njëkkee di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi suñu kanam ba lépp lu muy yóotu si ñun ñu àggaleel ko ko ci barke Seydina Mohamed. ma gis nga woo ko ci xeex ak sa taay mais bi ngeen jàppantee da ngaa bàyyi xeex bi bëre xanaa da ngay mbappat. tey jii boo xoolee man damay dem ci dëkk séeréer di bëre fu nekk damay bëre sama combat passé maa top 5 damaa ñëw ma kaawa ko ma dóor ko mu daanu looloo tax ma ñëw ma cokkaas ko ci xeex mu yaakaar damay xeex ma bàyyi fa xeex bi ñëw bëre ba ma jógee suñu ko neewoon naa la xeex suuma tey damaa bëre si. léegi lan ngay wax say supporter ak lu ñuy ak lan lañ lay teeroo sa waa koñ xam naa ne ñëpp lay teeru mais léegi looy wax ñu la topp waaw tey jii maa lay wax ni ñoom ñëpp ñu ngi taxaw xaar ma di xaar seen doom tamit tey dinañ gis loo xam ne mosuñu koo gis biir sam-sam ndax tey bi may ñëw li ma topp rek oto yàlla xam na ne bëgg nañoo gont mu ta leen maa ngi leen masaw coono bu baax a baax a baax a baax barki Seydina Mouhamed di ñaan yàlla sam-sam jàmm yàgg fa commune jàmm gën Sicap Mbao yëpp waaw di ñaanal waaw waa waa jël biraama coono ñu am combat ñëpp yàlla dafa leen ndam yu sedd guy ci barki Seydina Mouhamed victoire <laughs>